li nak mom ñu ngi jaajëfal bu baaxa baaxa baax naan ci seen project bi ne seen walu magay ak seen walu yokute ñu ko koo xel bu baax jamono bu nek eh, bu ñu nampa ak bu ñu eh, ko nak mu eh, liko doré ci xalé ya dem be ci mak pour mëna am nak li nga xamné modi seen dundu bu rafet mëna am seen walu wér ko ko soxla We encourage them to go to be doing dañuy faral di ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci ay dëkka yi maanaam ci gox goxaan yi ne ñuy bàyyi xel seen xale yi maanaam weer bu nekk ne ñuy gëstu di seet xale yi bu baax a baax a baax ndaxte loolu lu ko waral mooy xale yi lu ci gën a bari duñ leen dee yóbbu ci bunti fajeekaay yi kon nag seet ndax xale bi mu ngi am dunda bu seet la faaw rek waa réew mi mbete waa dëkk boobu noonu ñuy gestu di seet xale yi benn dina leen dimbale pour mun a xam xale yi nga xam ne ñu ngee màgga ak ñi nga xam ne ñoom seen màggaay eh, demut ni mu war a demee te su loolu xewee lu muy def rek mooy mbete lu muy indi rek mooy xale yi nga xam ne seen màggaay daanaka teguwut ci yoon dinañ leen mun a dimbale jox leen ab lekka yoo xam ne dina leen yokk kaataan mbéte dina la dina tax ba nga xam ne xale yi nga xam ne ñooñu seen maagaay taxu koo tegu ci yoon ba tey dinañ leen yóbbu ci hôpital yi nga xam ne ñoom ñoo gën a mag. ñi nga xam ñoo di ay kañaleen yi ñu xamee traditional communication de ñoom itam ñu ngi am ciir bu am solo boo xam ne bi ñu ngi koo def ngir roqan la pas-pas yi nga xam ne groupe yooyu ñu ngi koo def ci dëkk yi. Eh, ñoom itam ñu ngi leen a jàngal wàllu dund bu baax ak lépp loo xam ne moo jëm nag ci wàllu set eh, di ko tasaare ci seeni gox di jëfoo nag ay woy ak i drama maanaam ay théâtre yi eh, ci dëkk yi bu defee nag ñi nga xam ne itam ñoo di aada yu màgget yi nga xam ne moom la ñu fekk bu baax mu doon loo xam ne dafa doon jumtuwaay yu am solo yoo xam ne dañu koo jëfandikoo rawatina nag pour mun a jotal nag ci wàllu tasaare xibaar yi ci seeni biir bu nekkee ne nag loolu jafe na ci ñoom. mbaa kila ñu ne ti kari yoo kari si ñàkkili liñ dee faral a def mooy dañ dee seet weer bu nekk benn bis ñu dem naka ci gox yi nemmeeku xale yi seet seeni wérgu yaram peese leen ah, ñi nga xam ne naka seen wérgu yaram demeewut noonu ah, dañ leen dee faral ñaax pour ñu dem seeti lopitaan yi ñu seet seeni wérgu yaram loolu ci mun a nekk nag xale yi nga xam ne nag ñu ngi am dund bu bon eh, ñii dinañ leen yóbbu nag ci ay woot yoo xam ne nag lopitaan pour dimbale leen ñu mun a jotaat nag seen wàllu wér gu mun a jotaat itam seen yaram. luñ dee def mooy dañ leen dee indi fii dañ leen dee euh, indee si fuñ dee wax patient department bi moo nekk foo dee jiitoo soo ñëwee si lopitaan bi suñ leen fi indee lu bari lu bari bari daf dee fekk ñu ngi amee beneen feebar lu mooy euh, feebar yi euh, ñàkk bi léegi suñ ñëwee dañoo toppatoo xale bi si ñàkk a bi ak tamit toppatoo ko si feebar bu mu amee noonu si ñàkk bi nag euh, su dee xale bi ñëw na ak biir bu daw dañ dee dooree lu ñooy wax résomal moo nekk ñëpp xam nañ njaxas buñ dee joxee suñu ñëwee su lopitaan waaye ñooñu duñ leen dee mun a jox njaxas boobu noonu dafa am luñ si dee boole dañ si dee boole tuuti sukur ak lu ñoo wax CMV ñu jox leen ko ñu naan ko suñ demee ba euh, lii bi bàyyi biir bu ndaw bi bàyyi ñu dooral leen boo xam ne ñu ngi koy wax F75 meew la boo xam ne dañ ko dee jaxase ak euh, diwlin jaxase ko ak euh, sukur boole ko ak lu ñooy wax CMV pour ñu bañ bañ leen mun a living daal delloosiwaat si ñu nekkee woon comme ñu koy anglais di waxee stabilise comme ñu stabilise leen ba pare ñu mun la naa taxawal fu dëgër daal léegi nag suñ gisee ne léegi ñii léegi fuñ nekka nii dëgër nañ dañ ñu start ñu commencé di leen jox boo xam ne euh, bu ñoo waxee bu ñoo ooyee F100 moo nekk pour muy ñu yokk seen euh, diisaay yaram bi suñ leen joxee f boobu noonu tamit dañ ko dee euh, jox ak comme seen peese bi nuñ peese peese bi la ñoo xool ñu xam lan ñaata si loolu noonu lañ koo jox soo noonu lañ leen fi dee toppatoo yi suñ demee léegi bañ gis ne léegi seen peese baa ngee yokku ndaxte bis bu nekk dañ leen dee peese dañ leen dee jox luñ dee wax plompi not am na beneen sax buñ bu tuddaat yi bi pi 100 waaye boobu fu mu nekk nii amul bii moo fi am dañ leen dee jox bi ñu àndaal yi si cër bi ñu leen koo jox ñuy lekka léegi ñu jox leen uh, uh, appa boo xam ne dinañ dellu si waat fii pour ñu xoolaat leen ndax ñu ngee uh, seen disaay yaram baa ngee yokku xale yi gannaaw si gannaaw bu ñu leen bàyyee itam gannaaw bu ñu amee seen wàllu gëram eh, dinañ leen a bàyyi xel bu baax waaye jamono bu nekk di yaay yi nga xam ne ñoo di seen yaay. We had so many children who were admitted in the, the pediatric fii nag dañ fi dee am xale yu bari ci loppitaan bii nii muy lopitaani xale yi ah, ndax i tamit ah, ah, dañ leen dee bàyyi xel tamit di seeti tamit seeni wérgu yaram ak ci jaar-jaar yi nga xam ne moom lañ dee jaar ngir ñu mun leen a aar ci feebar yi nii lopitaan bii nii nag ñu ngi ko taxawaloon ñeneenti at ci gannaaw. ci biir lopitaan bii nii programme yu bari moom lañ fi dee def yu am solo yi tamit ngir tamit ah, bàyyi xale yi xel ah, faj leen yi tamit wala boo ko jox leen ñam yi nga xam ne moom la seen yaram yi soxla lu méngoo ak mbootaay àddina suñoo ooyee World Health Organization ci diggante bi nag dañ leen dee bàyyi xel surtout nag ñi nga xam ne ñoom leen dee téye fii nii di leen bàyyi xel di leen seetlu pour musal leen naka si feebar yi nga xam ne moom mun na leen a isil looraange joko kondi jalono ko bigana yamaya kantuno men bina kola siso be nyami suma doom bi fu mu nekk nii tane na bu baax a baax a baax am na uute nag ak bu ma ñëw fii nii ndax tamit bu ma doon ñëw fii nii mu ngi amoon nag jafe-jafe ci dënnaam bi ne ndax daf doon saxat bu baree baree bare waaye fu mu nekk nii man kontaan naa trop ci liggéey bi nga xam ne moom la docteur yi def ndax ñoom ah, dañoo kaf ak dina dinañu won seen kanam dinañ firi seen kanam ah, foy xale yi bi nga xam ne nag xale yi wér nañ ñu ñoo bàyyi. façon ah, loolu liñ dee faral a def mooy xale yi suñ leen isee fii si loppitaan yi dañ leen dee seet suñ waree jël péngu ñu jox leen péngu jox leen lekka jox leen meew ah, loolu naka daf leen dee dimbale bu baax ndax gisuloo fum nekk nii sax suma doom bi mu ngee fox ah, waaye tamit li ma jaaxal mooy ne mu ngi bàyyi eh, wàññi na lekkaam bi bu baax lum daan lekka daf ko bàyyi bu baax a baax a baax waaye mu ngee commencé di naan ndox comme nu mu waree. Euh, dolli ca it euh, xale yi nga xam ne jox nañu leen vitamine supplément di ay vitamine euh, lii itam am na seen yor am na solo ci seen wàllu wér seen màggaay ak li leen a aar ci ay jàngoro bu ko defee weeru jot nag dinañ ko jox nag xale yi ak ñi nga xam ñoo di ay waajur ci gox yi nga xam ne itam dañu sori capital yi. we immunize kids under five. fii nag dañ dee péngu xale yi nga xam ne ñu ngi am juróomi ak dem ci suuf te dinañ dee euh, nemmeeku ñi nga xam ne ñooy seen euh, yaay mbete jigéen ñu biir ñi noos bi nga xam ne moom ñaareel moo dee dimbale jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy matu ne waxtu bu nekk dañ daf dee dem di leen saytu seet umba bi mbéte bu fekkee ñu ngi matu fan lañ toll naka lañ mel mbéte mbaa amuñ benn jafe-jafe noos bi tamit boobu euh, liggéeyam la loo xam ne daf ko fi dee def fii ci lopitaan bi dina ay am ay garab yoo xam ne dinañ leen ko dee jox di vitamine A vitamine A bi nag dinay ñëw si ñaari anam am na per boo xam ne per bu xonq la am na per boo xam ne bu buloo la per bu buloo bi nag dinañ ko joxale yi nga xam ne ñu ngi am juróom benn weer ba fukki weer per bu xonq bi boobu lañ dee jox xale yi nga xam ne dañ am benn at ba juróomi at te buñ leen ko joxee yoon bi balañ ko joxaat dina dem ba appi juróom-benni weer. vitamine C boobu tamit beneen garab la boo xam ne am na njëriñ ci e, maagaay xaleel ne fii dinañ leen ko dee jox te vitamine tamit dina dimbale xale bi bi nga xam ne e, ñaareel feebar yi nga xam ne ci kaw der gi la dee tegu dina leen aar foofu noonu te dina dimbale xale bi tamit gis-gisam gën a leer. vitamine E tamit dinañ leen ko dee jox ndaxte lu am solo la ci dundi nit ki donte sax lu ndaw la moo nekka waaye lu am njëriñ la si maagaay xale bi ak ci gis-gisinam bu fekkee xale bi mu ngi xool mbete di jànga loolu daal eh, vitamine E si seen lekka dina leen dimbale. lii nekk na loo xam ne nag loo xam ne na baax a baax eh, campagne bi xam ne bii ñu ngi ko def ngir yaatal nag eh, lépp loo xam ne moo di jëfu xorom si nga xam ne dañu ko iodise xorome iodine yi jaarale ko nag.